eh mënu ma ngeen. affaire ah, ça. yow looy def bëgg ne daaj ay vélo kese yow waaye ci tali bi laa dem xam nga dawalu gars yi rek fële laa dem ñu mbëkk ma xaw ma nu mu demee noonu. mbëkk loolu la bu ñu bëgg la. danaa daal ba ci xaw ma selebe yoon lañ koy wax xaw ma waa ji daal jugee na fële ak otoom mbëkk ma ma daanu jël baal ma sax waxuma ko jug dem yoonam. maa mii dama dem dañoo ba selebe yoon rek selebe yoon noo jugee. ah xanaa de dama toog commencé jugee fële di ñëw. danaa gisoo pano bi. pano wala. pano dañ benn man ma yor sama vélo di xool ay pano pano wala. waaw mais waa vélo si si usage ngeen wax maanaam ñi utiliser dal bi ci ngeen wax war ngaa xam pano stock. ah usage de la usage ñi nga xam ne ñooy daw ci tali kese. waaw mais foo doon daw si ci côté bi doon daw. tamit père mais non booru booru xanaa stock bi xanaa lii la nga mën a lii stock ngeen jàng oto ci yéen. mais stock du waaw mais est-ce que moom la ñu bindee. mais man daal gis naa sa topp. wala amul problème mën naa laa jox occasion nga xam yooyu yëpp. ah noo ma koy jàngalee. dañuy ñoom voilà. naa auto école. waaw man peer man yow tam xam nga amuluma awma lu ma la fayee man la sécurité vélo bii ma yor nga may njëg nga wax waxi auto école. non bi ñu def si na yow xamante nañu bi du tey démb la dinaa ma la jaarale nga mën na xam am xam code la route. maanaam dawal ma dawal naa fa mën dawal dawal da nga koy jàng da nga jàngal code de la route nga koy léegi mënu ma ma mënu dawal te du ma jàng code de la route. non non non c'est impossible nee daal coow ba na léegi nañ dem a ah baax na. waaw nañ dem man daal bëgguma dem ba ci biir daal nga may laaj ay xaalis.